jaajëfal mbir mi defe naa ni ñun ñëpp ñun ñëpp bokk sit yi fi teew aussi ñu ngi leen di gërëm mais xam nga instant bi moom da ngay tiit ba doo xam sax looy wax donc yàlla baax na ba mu amul perte humaine en vie humaine euh, dégâts matériels la mais li ma gis dégâts yi buur la wax dëgg yàlla mais nag yàlla baax na en naa ñuy définir origine euh, incendie bi peut être yàlla baax mais daal métti na ko fu métti yem ngeen ko xalaat rek métti na metti na trop. bi am yow la la fekk ak ci lan la man dem dañ ma ko wax ma jël taxi di ñëw moom boo tiitee mënoo dawal dañ ma ko wax rek may daw si di ñëw mais boo yéegee ci kaw da ngay xam ni lakk bi métti na lakk bi métti na vraiment mais bon ñu xaar rek xool lan la ñu enquête bi di génneel. Euh, origine bi lan la loolu rek lañu ci mën a wax sinon di santaat yàlla bu baax a baax di ci kenn ñàkkul bakkanam parce que ñëpp xam nañ ne télé rajo day daw 24 heures sur vingt 24 donc dañuy santaat yàlla bu baax a baax euh, gars yi amuñu stress mais nag man da ngay tiit da ngay tiit da ngay day metti parce que yow ci kër gi nga nekk te xam nga ni ñuy dundee dafa metti trop. metti na mais sant yàlla yàlla baax na. aussi ministre de la communication waaw ban jàngat nga ci teewaayam la. waaw ñun ci njabootam lañ bokk ñun ci njabootam lañu bokk et puis c'est de dire que ni lii la ñu soxla ci sunu ay autorité lii la ñu soxla ci sunu ay président ay ministre que sa population bu la soxlaa à la minute qui suit nga nga nga débarqué loolu loolu defe naa ni nga embarqué ñëw.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

Alors, c'est par devoir, devoir de solidarité, c'est par devoir de reconnaissance à cette maison, Walfadiri, qui fait un travail euh, depuis plusieurs années, euh, depuis euh, Feu Sidi Lamignas, qui est quand même une icône de la presse sénégalaise. Et aujourd'hui, euh, si, on nous, si nous apprenons que cette euh, euh, maison Walfadiri a connu un feu d'incendie quand même très violent, qui a détruit ses infrastructures,